بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين bokki yi bokki jullit yi bokki taalibe yi ak bokki réew mi maa ngi nuyu ñépp fii ci kër Serigne Abdou Khadre Mbacké nu toog tey jii fas yéene waxtaan ak bokk yi di fàttaliku ku baax di jàmbaar yu mag ci lislaam di jàmbaar ci réew mi yépp mu doon koo xam ne waxtaan ci moom yomb na yombul ndax day géej ci anam yu bari géej dafay làmboo njariñ yu bari ñiy dem ci géej ñi ñépp bokkewuñu luñ cay wuti waaye ku ca dugg mbaa nga taxaw sax ci pegg bi am na ñooñ lañ ciy soxla pegg bi jox na leen ko am na ñu ci kaw doy na leen am nañ dañuy dugg ba ci biir ku nekk lañ ciy wut ki nii bëgg a waxtaan ci moom noonu la mbiram demee muy koo xam ne nag ku mel ni man lott na ci jéem a def ci moom ay seere ndax koo xam ne Cheikhul Xadim moo seere mbiram ñi mbokkal sëriñ Touba seere yi mbiram duutu war a soxla seere ku mel ni man waaye xanaa lu gàtt-gàtt nekk nañ fi moom as ndiir soo xam ne xam nañ ci moom as lëf loo xam ne fàttaliku ga dana nu jariñ waaye daana mën a jariñ it ñi nga xam ne jotuñu woon a dund ak moom loolu rekk la ci nit man ndax koo xam ne bi ñuy joxe saw tur wax ju siiw la sëriñ tubaa ci boppam dikk ba jege kiy joxe turu wax ci wax ju rëy bokk na ci lam ca wax am naa ci moom yaakaar yaakaaram jooje mu waxoon nag moom la tegoon ci kanamam façon yéene du ko tas mukk diir bi mu fi nekk nekk fekk ay magam kenn ku ci ne bi noppee gi sëriñ tuubaa noppi cim njàngam kafi neel sëriñ Touba muy seex Mouhamadul Moustapha tàmbalee ko ci moom jaar ko ba ci sëriñ Falilou ak képp ku ko ca njëkk a dikk ci jamono muy wut seen gërëm mel ni ku jàkkaarloo sëriñ Touba noonu la meloon ak ñoom ñëpp yàlla def itam jamono yi nga xam ne dem na ba yilif yoon wi itam mu wàññikuwaat mënoon toog fas yéene fay ko li nga xam ne nii lebal na ko ay kilifaam waaye dafa mel ni booba lay doog tàmbali bu liggéeyam ci mboolem ñi nga xam ne ñooy mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoo bokkak moom sëriñ bi ak ñi nga xam ne nag ñooy njaboot yi aju ci ñoo ñi may wax mel ne kenn ku ci ne dafa doon laxasaayuwaat mel na ku musta def dara la ko jiitu wut ci ngërëmul sëriñ tubaa ci ñoom ñëpp si Abdou Lahad nag jëmm la joo xam ne amutoon benn yitte bu dul sëriñ tubaa manis naa wax loolu bokk na ca la koy firndeel boo demee ci moom di ko siyaare ni ñëpp baaxoo ku dem ci kilifa da ngay sàkku ñaan waaye boo ñaan boo sañoon kilifa gi yàgg fi boo ko ne yàlla na nga fi yàgg neewaana ma dégg mu tontu ki koy wax ba dañoo mujj ñun ñëpp ñu am ci tegtal ne loolu boo ko ko waxee ñaare du ko jox paal li nga xam ne nag foo ko ko waxee duutale ci xeb mooy yàlla nga am ngërëmul sëriñ tubaa sëriñ tubaa jooju rek la doon wut diirub lim fi nekk mas nay mas naa maa ngi fàttaliku ci ay waxam bis dafay wax ne sëriñ bi daa wax ne billahi allazi laa ilaha illa huwa xayaati wa mamaati wa sakanaati wa xarakaati lillahi wa li rasulihi daani noonu mu defal sëriñ Touba noonu sëriñ Touba def ci yonent bi nag man def naa ko ci sëriñ Touba duma fàtte it loolu bi mu waxee waxam jooji ca suba sama dégg sëriñ Abdou Khadir moom mën naa seere sëñ Abdou Lahad ñoo bokk sëriñ Touba waaye waxul waxul wax wax ji lépp waaye daf ne sëriñ Abdou waxam ji démb noona la ni wax de noonu la loolu nag kon mi ngi feddali ne mi ngi doon wut ngërëmul sëriñ Touba ñi mu sëriñ Touba ñëpp maase dañ seere seen ngërëm ci moom ndax seen taxawaay ci ñoom nun ñi nga xam ne ñooy gone yi murid yi mujj a dikk te fekk wu ñu sëriñ bi ñun moom mënuñoo fay sëñ Abdou Lahad ndax yaakaar naa ne eh, am na jamono kenn ku ci ne li ngay li ngay xëñte woo mooy def lu baax ci njabootu sëriñ Touba boo ko sëñ Abdou Lahad loola dana nekk mbégte ci moom dana nek ak cant ci mom waye safane ba amna yakar ci ne amna jëmono jamono kenn ñemeetu ko kenn ko taxaw ci biir réew mi jox nga leen ci mat sekk loola mom mo nu ko dimbilé ñun ñëpp nu xam kan moy Serigne Touba naka la def ba jariñu ci Serigne Touba ndax tak njariñ man na nek fe waaje bu xamul nuñ koy jariñoo it lum yag yag day rombante njariñ la waye nak mom dimbilé na kuy goné mag ñi nga xamni itam ñi ngi foon nekk feek ñoom moo leen dimbali ba lañ doon dox ba jot ko caa am da doon yokk waaye du wàññi ko ndax moom ci boppam bu amoon kenn kuy mën a toog bañu dee wuti dara mënoon na koo def ba nga xamee ne liggéeyal na sëñ Modou Moustapha liggéeyal sëriñ Fallou ba yilif Touba bu ko bu sañoon nag mu toog doon kilifa ñépp te xam ne Euh, liggéey na loo xam ne jot ci payam rek ci doon des waaye fa la tàmbalee bu defutoon lool nag ñun ñii noonu dana metti ci nun ndax yàlla du ko joxoon nag fulla ju bari ju ànd nag yar boobu biir ak bu bitti noonu ko ko sëñ bay jaxate wax yar bii nga yor yor ko biir ak bitti moo di sakkee loolu ku ko xam xam nga ko ci moom ndaxte ni mu mënoon a jëflanteeg doomi sëriñ bi mboolem ñim nekkandooloon ci réew mi it noonu la leen jox cër ba yaakaar naa ne képp ku uh, am moom ab jëflante danga am loo jàpp ci moom loo xam ne ba dunay tukki du jugati ci sam xel loolu uh, jikko yooyu moo ko ko may waaye fulla ji bari na waaye li muy bari bari yar bobu sëñ bay jaxati wax moko tax ba taxna nu way man di mel rek man nga jarignu ci mom te bo dikkee da nga gëna japp jàpp Touba ndax mom loolu nga koy fekk mu nekk ci fi nga xamni ni nak fi la nu nekk tay muy kenn ci ñim Touba ñu di ko wax sëriñ Abdul khadir sëriñ Abdul khadir mbake diggam ak sëriñ Abdul Lahad lu way don don don gone fekk nga ci lu am solo loo xam ne boo ci déggutoon dara lu ko jiitu it xam ne seen diggante na meloon ah, sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdou Lahad bés weñ ciy wax ba waaye mu wax wax ju moo tënk lépp daf ni ñoom ñaar de niñ meloon kenn mënu caa yokk dara kenn mënu caa wàññi dara loolu nag mooy dëgg sëñ Abdou Khadir bis dégg naa muy wax ne sëñ Abdou di nii mu mel ci man tey taxut mi ngi ko tàmbalee ci jamono yi sëñ Modou Moustapha bañ demee ci jamono yi sëñ Fallou mu yokk biñ demee ci jamono yi boppam mu yokk loolu li nga ciy déggee mooy bañu xamante ñoom ñaar ndax la jiitu jamono yi sëñ Modou Moustapha mooy jamonoy yi sëriñ Touba boobu ñoom ñëpp ñu ngi ci jàngukaay noppeeguñu woon kon nag loolu lenn la ci lu mu seere ci eh, sëñ Abdoul Ahad waaye ñu xam ne. noonu mu def sëñ Abdou Khadir ni la defoon la ko dale ci sëñ Mouhamadul Moustapha ba ci seex Mouhamadul Mourtada kenn ku ci ne sëriñ bi rek la doon xool ci yow moom la doon xeeñtu ci yow ku ko gis ku ne boo bëggee tekki dara fa moom da ngay fexe ba rafetal sa digganteeg njabootu sëriñ Touba. loolu moom mooy li nga xam ne liggéey la ko sëriñ Touba ci njabootam waaye eh, ni ñu ko waxee woon daf yi géej yim li mu defal sëriñ Touba bari na bari gu ko fi bëgg a toog fii di ko lim am naa yaakaar ci ne danga ci fanaan te doo ko mën a jeexal waaye kon rek dañ ci tuuti tuuti rek ñu xam ne ku ci ne la nga ci xam lépp sax mënoo ko wax sàkkaan ak la sa moroom xam waaye boo ko xoolee alxuraan dañoo xam ne lu sëriñ bi yitteel la ba eh, jamanom ku ko ku amati alquran ju rafet bo mané boko mané bind mu rafet man ko bind mu wow da ngay do ko do ci am ben bëgg-bëgg lutul dul ko yobul serigne touba ndax so démé da nga am cër bu reuy fa mom da nga am teranga ju reuy ju bayiko ci mom jëm ci yow sa bo accès rek tay te andi alquran ju rafet am nga cër ci serigne touba loola moo tax mu liggéeyal ko ci liggéeyam bi nga xam ne benn féetewu ko kaw muy daari kaamil ji mu def fii ñu tuddee ko maktabatu sayxil xadim nga xam ne daari kaamil ji dafay mel ne denc la woon rek ndax kër gi ñu ko def tey moo doonoon kër sëriñ Sooy bu ci bi ñuy natt dëkk bi mu taqaloo woon fii ak kër sëriñ Abdou Khadir jàkkaarloo am nay jamono sëriñ Sooy bu daf koo jox sëriñ Abdou Lahad addiya ñu toogaat be yàgg sëñ Abdul mom moom yëkkatiwaat ko jox ko seigne Abdou Khadir digeenti bobu nak nek na keur seigne Abdou Khadir ab dir ba nak mebet mi di keur seigne Abdul had ñom niñ mel rek nga xamne amuñu ñoronte amuñu nëbbonte kenn ku ci ne lo wax sa mbokk da mel ne perkal ci mom amul dara lu mu ciy xalaat sëñ Abdou Lahad na seigne Abdou Khadir keur gi waye ko soxla ngir def dari kamil te xam ni ñoom ñëpp loolaa leen gënal dafa dikk waxtaane ko moom kër gi delluwaat ci loxoom ci li fi def nag lii nga xam ne moo rek moo yelloo barab bi yaakaar naa sax bokk na ci lam ci wax fii daal yaakaar naa ne yelloo wut dëkkiinu doomu aadama ndax ni mel ak jumaa ji kon daal dama fay bëgg defal sëriñ bi ab jàngukaay yaakaar naa ni lii moom bokk na ci li yoonu murit di pukkare wa tey àdduna sépp di ko seet si euh, nun ci suñ bopp tam dafa am nit ki booy wax ci li nga xam ci lu baax lu ñu def ci sa mbokkum mm, lu ñu wax ci lu ñu def ci sa mbokk yow war bala ngay tudd kenn war ngaa tudd sa bopp man ci sama bopp bokk na ci li nga xam ne sëriñ bi defal nanu ko mo nuyo bu makka ci lo xamni ni ben koy def dafa yone serigne mustapha sama rek, ci serigne Abdou Khadir bobu sax bob man ma nga nek dakaro dafa mu jox ko biye makka ni ko li nag du biye buñ fi andi ci mako jël ci sama euh, alali bop dama bëgg yobbu cheikh makka ma mu dikk wax ko suñu Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir ne ko wool seex te bul ko ko wax maa ko koy waxal saa bopp yàlla def na ne loolu moom làmboo na ci ay mbir loo xam ne du sax lépp lan mën a wax wante nag dana am luñ ca junj waaye jàpp naa ne daal ñaan yim nu ca ñaanal moo ma gënal fuuf acc donte acc farata la tubaarkalla ñu am ci moom jataay boobu eh, yooyu nag dana ci am yi duñ ko duñ mën a wax waaye nag daal jëmm la joo xam ne ku wéeta ak moom waaye nag du doo doo ko ñemee wax lenn lu dul sëriñ Touba. noonu mu ko waxee woon rek eh, nii sëriñ bi defee yonent bi jox ko dundam gépp ay yëngutoom akuk dalam ak dundam akuk euh, jégeem fi lépp mu jox ko yonent bi moom it noonu la defoon sëriñ Touba. ba amatul lenn lu bëgg amatul lenn lu muy bañ ak bëggam ci sëriñ bi la wéeru ak bañam ci sëriñ bi la wéeru kon nag kooku mooy Cheikh Abdoul Ahad ñuy jub bisam boo xam ne nii na ko mbooleem jullit ñi fàttaliku ndax fàttaliku dana juru njariñ lu bari bokk na ci li ma tudd sànq ci ay jëfam yu defal sëriñ Touba moo di daari kaamil ji waaye bokk na ci li gënoon ñu ñor Serigne Touba li ko fi andi won moy da nga deg mu wax ci baytu qasidam lil Mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu lolu motax Serigne Touba di kon jamono moom képp moo doon jittam lolu yi nag Serigne Abdul Lahad daf ci defal Serigne Touba moy dëkk bi bamuy toxo daru salam di wër dëkk bi nga xamne ci wër dëkk barab bi ci lañ ko fekk wax ko dippug jamono Cheikh mohammed Moustapha booba buy dikk ay rabi àll képp ñoo fi nekk yaakaar naa dañoo dajeeg ab sàmm bu no bu doon wala bu rëbb lenn ci la ñoo ñu ñeme àll dal ñoo ni moo leen ni am barab sàngam daal romb naa fa ku mel ni ngeen di wax kon barab boobu ba mu fi dikk rab yee fi doonoon wéttale waaye nit nekku kenn mësu fi لان رك كوفي اندي وون دوندال سونو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم سوري ليپ لو خامني سي دا نا ديفو غالانكور سي كو خاني لول موي سيت مفوضا مسلما اليك امري مهاجرا لما لديك خام غ لول لا وخ سي مطلب الفوزيني لولي نك يالا دا ديف دك بي خيوال يوي مو سي نيان وجب الله الخير من الجهات الست وكفيها عن الافات loole mu ci ñaan nag ñaan yi nangu ba tax na mujj na rax bi it bari loola tubaarkal cig mu jëm la sax waaye jàpp naa ne nag mooy li ko gën a may ndam dëgg moo di fexe ba seetal dëkk bi ci lépp loo xam ne yelloowut ak moom te ba mu koy wax ba ñu ci dara daf nit sama bakkan laa ci teg yàlla def na nag jàpp naa ne moom bakkanam boobee lépp loo xam ne si tegal na ko yàlla ne lii na fi dañ wala bakkan bi jóg fi yàlla dafay jële loola mu ñu amee ci ndam loo xam ne nii defe ko ci loo xam ne def caa xam nga moom xakim la lu muy def lu ne rek ci xikma la koy defee ba tax na anam yi mu ko defee ba dunay tukki amul dara dara lu mën a soppeeti dara ci loolu yi bu ci yaman képp loolu day nab liggéey fexe ba dëkk bi mel ni ko Sëriñ Tuubaa bëgge loola moom mu teg ci bakkanam bu tedd boobee nga xam ne nun ñëpp jaral na suñuy bakkan ñu joxe ko ngir soxlaam moom nag soxla Sëriñ Tuubaa la teg loolu yàlla defal na ko ci ndam boobu ba léegi jàpp naa ne mas na ma dem Madina yaakaar naa sudul ci at gi xëy na ginnaaw bi dem naa ay umra daje fa ñu daan wax Mahmoud Yaasin yaakaar naa ni ñu bari xamoon nañ ko mu nekkoon fii ci asahar bu ndaam daan fii jàng américain la woon bu tuuboon tuddoon Mahmoud Yaasin hmm, ba mu déggee ne am na ñu nekk ñu jóge Touba ñu nekk ci hôtel be mu ñëw fa man daana ci jàkk yi sëñ Abdou Khadre ji la daan julli si ba ñu nuyoo ba noppi booba wax dëgg yàlla soriwuñu xaram ji waaye mu gis fii ay paquet yi cigarette yu bari ci suuf mu daan ne ma la fii de mu ngi mel ne tuubaa ci man waaye ne ma ah waaye am na lu ñu wute de mu ne ma ne ma ma ne ko ah mu ne ma xoolal lii ma xool gis paquet cigarette yu bari ma lii doo ko gis tuubaa loola kon sëñ Abdou Lahad moo ko defal sëñ Tuubaa doyoon na sëkk ab liggéey waaye nag lim nim ko niin ko waxee rek doomi sëriñ Tuubaa yi ci seen bopp lim def ci ñoom def ko ci seen njaboot loola euh, man li ma tudd sànq dafa mujj tey lu am solo ci man ndax la mu làmboo lépp ci xeeti teraanga yu ma mën a wax ak yu ma mënta wax yi ma mënta ñu jéggal ma ko waaye nag gor daal ku ko teral war laa fàtte mukk jàppoon na bi jàpp ko bàppi noo ñoom ñaar nag seen jàppan jàppante la ñuy wax ndax sëñ Abdou Khadir it yaakaar naa ne ku nekkoon ak moom balaa bëgg nga ñëw tagg sëñ Abdou Lahad wax njàmbaar gu Abdou Lahad def su boobaa ya, li nga ciy mën amee yow boo ko taggoon ci boppam doo ci amee loolu loolu euh, lu ñëpp xam la ko xam seen diggante jaxasoo woon nañ jaxasoo boobu waxuma la sax ñoom ñaar waaye seenu njaboot taalibe yu mag yi nga xam ne ñoo dëkke woon ci kër yi ku deme ne sëñ Baara Njaay sëñ Tuubaa dem noonu niñ meloon ak waa kër sëñ Abdou Xaadir ku demee ne sëñ Jiili Ture bi fii nekk ak mag ñooñu niñ jaxasoo woon ba fu ñu dajee mën a toog di waxtaan kenn du ci nëbb sa morom dara loolu ni ñaari kili kilif yi meloon moo ko waral ndax dafa lëkkaloo itam nu mu demee ak soxna may Maymuna mi nga xam ne mooy sa saqiixatu Seex Abdul Xaadir seen diggante yàgg na moo tax ñoom niñ mel bëgg-bëggub Sëriñ Tuubaa yàlla may ko saa su ne ci mbir lu mu dul may keneen ilay qaada llaahu ma lam yakuni wala yakun abada li mumkini loolu bari na ci anam yu bari yoo ko mën a xool gis ko ci sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Khadir seenu nekkin manes na ko caa xool gis ko ca sëriñ Ndiaye Guède bàyyi sëriñ Ndiaye Guède da daan wax moom bokk na ci ñi nga xam ne yàlla da ko mayoon ci mu mën a wattu ba sëñ sëñ Abdou Lahad bu waxtaan fii ci jullikaay bi bu yàgg këram otoom jëlsi ko bu dikkee bàyyi sëriñ day jaar fi sëñ Abdou Lahad jaaroon fu mu nooyee sax dafay nooyee mom nak eh, manona itam xamit sen diggante ku ci ne dang ko koo sa bop lool tam yag ak yow daana leen wax ne yeen ñaar de sen diggante li li tax serigne touba am ci lim ci am moy yaara ko waral njit lu amul dara ci kiñaan ak aji top ju amul dara ci bëgg aduna motax ngeen mel ni ngeen mel loolu yaakar na ku leen xam ñom ñaar wax joju dang ko nangu bu baax kon dal loolu moy li nga xamne mëneesu ko cee ñàkk wax waaye sëriñ bi mëneesuta toog waxtaan ko ci guddi wala sax weer ndax nag li li mu làmboo ci ngëneel nun nun nun ñuy nun ñuy taalibe yi di njabootu sëriñ bi xam ngim nu xamal sëriñ bi man de dëgg dëgg nag sant naa ko ci loo xam ne loolu nag duma ko mën a waxe fii waaye daal na di na nit di def ba jariñu ci sëriñ Touba loolu moom mooma ko biire loola nag tam euh, maa ngi ci sant bu baax su ma gisul lépp li ma ci gis doy na sëkk ci lu ma may noonu na ma ñëpp maa ngi sàkku ci ñëpp rek lu lu ma ci lu ma ci daaloon yàlla bàyyi nu fi ba nu jot ci lépp te lépp nu wute ku ngërëmam bii may wax ak gii may wax bi ma ci yebal Euh, moom booba yaakaar naa ne bis bi ma njëkk euh, am vol mooy bis biñ ko doon defal ñaan gi fii muy altine ci nga xam ne mbiram moo tax ma ma may ma fomm ba ca talaata ji laa mujj soo ko demee te loolu it euh, maa ngi ko fekk ci Touba Belal néeg boobu nga xam ne jàpp naa ne ci suba sa fa la wàcce du ko sore wala foofu dal fii la doon gisee mbooloo mi keroog néeg bi xam nga am na ñaari werandaa werandaa wu jëkki bi ngay jëkk jot fi laa ko fekk mu ne ma jàllal ci biir ca werandaa wa des nis tuuti mu fekk ma fa daane maa ngi doon ragal sax nga tardé yàlla ma ne ko alhamdulilah dem am naa def naa lépp def naa ñakk yeeg ba bis sàngam laa war a dem loolu jot na ko dégg daal may ñaanal ñaanal ma ba noppi daal man nag lenn rek laa soxla nga ñaanal ma ko fa ma doon taalibu sëriñ Touba tam nangul ma ko loolu nag dafa am lu lu lu ciy dégg moo di mm, man sama bopp booba samay at bëreegut ndax amaguma fanweeri at waaye la ma ci déggee mooy sëñ bi di lii moom xam naa ne am na ko ba noppi ndax la jiitu loolee sëñ Abdou Khadre génne na fii ci barab bi woo bàyyi Serigne Diagne ne ko demal ci Sëñ Abdu ne ko bàyyam gërëm na ko loolu dégg na loolu ginnaaw mu may wax lii waaye li li nga ci xamee rek mooy amutoon genn bëgg ci na gudd loolu lenn rek laa bëgg ku ma ko fa ñaanal doon taalibu Serigne Touba tam nangul ma ko man nag damaa jàpp ne booba man mii lay yëpp xamal ma ne bu fa ñaan lu dul loolu ndax moom lam bëgg lépp am na ko loolee yaakaar yi Serigne Touba jooju mu waxoon. ne am naa yaakaar ci moom li ko sëñ Abdul Ahad gën a defale bokk na ci ci liggéey bi mu ko defal mooy bañ a tas yaakaaram ji xam nga daa nga dégg mu di ko wax man mi nga xam ne sama baay daa waxoon ne am na ci man yaakaar bu ma amee lenn lu muy bëgg lu dul lislaam waaw du ma góor du ma jullit loolu moom moo ko sañee wax waaye noonu la ko waxee woon nag kon nag foofa rek la tegoon bëtam liggéeyal na ko ci njabootam bi la bëgg liggéeyal na ko ci taalibeem bi liggéeyal na ko ci ñim dëkkal ci lislaam ak nuñ mën di féete ku ne xam na ni sëñ Abdul Ahad wu ne am na ko waaye kenn ku ci ne boo dee doomu aadama boo jikkee mu teral doomu aadama ngi du seet loo doon du seet foo bokk loolu tam nag mooy Sëriñ Tuubaa loolu mooy loolu la def ci jamonoom ba tax na itam nag nun ñëpp maase nañ bu bisam dikkee kenn ko ne war nga xam la ci sa gar nga def ko ci man defa sa yéene sama dund duma massa fatte Cheikh abdullah ndax lim defal ci pir, bir ak lol bitti yalla Serigne Touba rek moko meuna defal nit kon nak lol mom moy limay wax bala ma waxal kenn waxal sama bop serigne Modou Mbacke man gané momit moko yobbu Makka kon ñi ci dess ñëpp bu fi desaatoon nak ñom loola da leen koy defal sëñ Abdou Khadir xam ngeen ne ca Gédé la ko seexul xadim feeñu lii dañ koy wax kuy waxtaanee waxtaanu sëñ Abdou Khadir mën nga cee wax sëñ Abdou ndax dafay am lool ci jamonoom la doog a amee ba muy nekk Gédé fii dëkk kër gi mi ngi fi ñëw 1949 la ñëwoon fii ci këram gi te Gédé la jóge ñëw fi kon feeñu nañ ko jox ko ndigalul mu dem màkk aji koor gi nga xam ne ci tabaski bi la aji koor googu ba tey sëriñ bi joxaat ko ci ndigal loolee nag ba mu ko waxtaanee ak Seex Abdou Lahad la daal nag moom def yitteem jëpp mooy def bëgg sëriñ Tuubaa googu sëñ Abdou Khadre la koy doxloo ji waaye mu daal di nekk noonu lépp kon bàkke lépp maa koy def kenn du ci def dara ba ci ñi mi àndal ñëpp yaakaar naa mbooloo lañu woon bokk na ca ñi mu àndaloon ñett ci doomi sëñ Mbàkke Buso sëñ Baaxir Bousso sëñ Assane Bousso moom mi nga xam ne yàlla def na foofa la wàcc liggéey fa la des ak sëriñ Muxtaar ñoom ñëpp ci lañu woon ak ñu bari ci bokk yi sëñ Abdou Darou Salaam ak yeneen i bokk sëñ Daam Atta sëñ Modou Habib moom sëñ Abdoulahi tey moo nekk kilifa kër ga ah, ñooñu ñëpp ci leen leen sëñ Abdoulahat wax nañ gunge sëñ Abdou Xaadir yaakaar naa sëñ Abdoulahat ci piste bu avion di wàcc ajug Sëñ Abdou Khadre googu lañ ko ma sa gis ndax moo ko gunge ba mu dugg ci avion bi bi muy ñibbisi mu dem gàttandu ji ko naka mu wàcc ci avion bi yem ci moom jàpp ci loxoom ba mu dugg ci otoom ba mu dellusiwaat fi ci kër gi loolu lenn la ci luñ ci mën a wax waaye ñoom ñaar lañu séq lu bari nag yoonu kenn nekku ci doom ñu waa kër Serigne Touba xam naa liñ ci xam rek lañuy xam waaye nag lañu séq ñoom cofeel gu wér kóolute gu wér am na ci sëñ Abdou Xaadir am na ci Seex Abdou am na ci nag njabootu Sëriñ Tuubaa tey ñoom ñaar li ñuy waxtaane kon ci ñoom ñaar lañ koy mën a yemale waaye lii may wax nii moom ci tàmbali ba rek dégg ngeen ko ci samay wax te dale ci Seex Mouhamadul Moustapha ba ci Seex Mouhamadul Mourtada ba ci soxna Fatija ba ci soxna May kenn kum ci yëg sa yitte balaa noppalu yitte ja daa mel na nga ko bëgg kooku mooy Cheikh Abdou Lahad bisam lañuy ñuy jub maa ngi fàttali ñëpp di fàttali sama bopp waaye di fàttali njabootu sëñ Abdou Khadir ñu xam ne ku mas a tàggu sëñ Abdou Khadir ne ko maa ngi siyaare ji sëñ Abdou Lahad lam la cay tegal mooy boo demee nga siyaareel ma ko te santal ma ko moom tamit mu baaxoo lool foo ko ko waxee mu ne ma ne man di maa ko war a sant loolu ñoom ñaar a ko xam loolu daal mooy doxalin wi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nañ ci àgg ak jàmm def ko noo xam ne danañ jot ci barkeb mbégum sëriñ Tuubaa moomee ak yaakaaram joojee nga xam ne cim yaakaaroon tësut yaakaar ji ba def fi liggéeyam bii te mësta génn bëgg gudul ak bëggam fam nekk tey ji yàlla na am na lam bëgg waaye nag ñaan loo woon nañu yàlla ko sëriñ Touba nangul ak taalibeem lool lañ ko sañ a ñaanal loolu laa ma laa mujje dégg ci moom mu wax ko kon nag kuy ñaan jàpp naa ne loolu rek moo dig bëggam li ci des lépp nag dangay ngay dàkk man nag ginnaaw dégg naa li mu wax loolu rek laa fas yéene saxoo jërë ngeen jëf maa ngi sant Serigne Sidi mi nga xam ne moom xam nañ ni ginnaaw sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou am na lu mu seere ci moom te loolee moom itam. tabarkal sa su ne rek lol la ñuy gis ci mom kon nak yalla na ci kanam njabot gi ak njabot gi yag ci ginaawum nu xamal leen ni ñaari kër yi du ñaari kër genn kër la seigne abdullah ak seigne Abdou Khadir ben lañu bar yalla def ci def ay melu ci ak depo da ngay ko ci waxal lam lay tontu bo dikke ci ki ci des lol lay tontu lol mom mbirum serigne touba la waxon na ko jërëf ñu ci delu mom la sopp